leen di laaj noo leen dundee 137e appel kii Seydina Limamou. sant yàlla parce que limaam moom ko xam ku nekk nga xam ne yàllaa ko yóndi moo waxal la meñam moo ko wax moo ne ya masar jinni wal insi inni rasulillahi ilaykum kon nag loolu moom ku yàlla yóndiwul ñemewuloo ko wax képp ku yàlla yóndiwul ñemewuloo wax baat boobu baat boobu dafa rëy Seydina Limaamu Mahdi alayhi salaatu wasalaam kenn saxalu ko suukar kenn saxalu ko lem mu waxal ko boppam de gëm si nañ ko ñun dañoo ñëw gëm si oote bi te su neexee yàlla dinañu dee ci lii nu ñu dundee bés bi xanaa baneex rek parce que ab yonent su la su ootee ba nga ñëw nga uyu ko loolu baneex la baneex kese la ñuy la la la ñu dundee bës bi tey ngeen dundee 137e appel Seydina Limamou. 137e appel Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam dundee nañ ko comme niñ ko daan dundee Modou Lamine ñëw na waxtaan waxtaan wu neex waxtaan wu am solo di dëggal ne Muhammadu Rasulullahi mooy Seydina Limamou Lahi alayhi salaatu wa salaam. message bi mu joxe dañuy gën a firndeel di gën a dëggal ne Seydina Limamou Lahi. mooy Seydina Muhammadu Rasulullahi loolu la gën a dëggal gars yi nag bu ñu gëmulee ba léegi ah ñun de wóolu nañ ne moom. dan ngeen dundee appel reen bi par rapport ak appel yi. Ah, ñun chaque année dañ koy dundee comme d'habitude rek parce que on a l'habitude de le voir comme ça chaque année noonu lañ koy dundee ñëw jaamu ñaan suñuy soxla gën a firndeel de Seydina Limaamu daal mooy Muhammad. kontaante ak mbégte ak gëm baylaay ak gëm na yónnante ak baylaay gii. day yok way du wàññi ko ñu gëm ko Seydina Limaamu lay mu dugg suñu xol mu tedd fi ci yof ci brise bi ci ngelaw li nga xamne fu way jóge yof nga bëgg dekk kon nga xamne yenen tib yalla be fi tedd ñu gëm ko gëm doom ji sayidina isa mi ñu taxa def ne armal ne ñu dañu aji suñu kala rek la jëli mais dañu aji di ñaan ci kàttanu yalla ku gëm Seydina Limaamu ak ko gëmul yalla na nga yalla ñew ci terom bi boo fi ñëwee di nga fekk li fi li ñu tax a jóg wujja bu déwénee yal nañ fi tasawaat ñun bàyyi rek la ñu gëm moom la ñuy nooyee. nan ngay dundee reen édition bi ak édition yu jot a jàll. jot a jàll yooyu ak taam taamu tey bi ak taam day gën a neex yooyu neexoon na mais day gën a neex ndax xale yi danoo gën a màgg gën a gëm Seydina Limaam danoo gën a màgg gën a gëm Seydina Limaam ñu ko xamul ñoo ko gën a gëm suñuy set ñun ñooy gën a gëm baylaay ñun Baye Laye la ñu gëm moom la yaakaar ku ko gëm ñu gëm la mooma de. moo ko moo ko moo ko gën a dooleel. ndax boo xoolee bu jëkk ba ma boo masaan wax ne laayeen la ñun leen yëpp yow foo jógee waaye léegi ñëpp bëgg ko ne parce que li koy won bu koy li koy wane mooy képp ku kër yi fi nekk yëpp bu ñu xeeloo lu weex la ñuy sol te bàyyi Seydina Limaamu moo fi jëkkoon ne indi lu ñuy sol lu weex ndax ba mu wootee. ah am na ñoo xam ne gëm nañu am na ñu gëmoon ndax naa Mohamed mi nga xam ne moom moo ko wutu moom mooy Seydina parce que yàlla moom moo ne yàlla moo jël ruu Seydina Mohamed sol ko sama yaram naa Mohamed ba mu wootee sa makk ñu bari ay mbokkam ñoo ko ñoo ko gënoon ñoo ko gënoon a bañ Seydina Limaamu ay mbokkam gëmuñu ko woon ay doxandéem ñoo jege sàll bëggum ko kon mbokk lii dafa di loo xam ne mu neex mu naqari ñu nangu ñu bañ moom moo am ndax lii wolof di wax lu dul dëgg du yàgg. taw lu dul dëgg du yàgg ndax di wa ne woote ba ma ay téeméer ak fanweer ak juróom nit ñi di gën a bari a ah, ku ma ku nanguwul day sa affaire la waaye ñun gëm nañu. appelu reen bi nan ngeen ko dundee ak appel yu jot a jàll si ginnaaw. waaye xanaa dégloo sa li ma la waxoon léegi si si bi ma sama njëlbeenu kaddu nee naa leen nit ñi dañuy gën a bari te organisation yi si duñu duñu duñu benn ndax bu njëkk ba tuuti nit la ñu woon waaye léegi xoolal nit ñi nekk si ñi fi nekk. xajuñu si xajuñu si place su Cambérène bi place su Diamalaye Yoff tam duñu fa xajuñu fa kon boog nga xam ne li ma la wax rek appel bi moom day sa kan sa kaw ca kanam rek day gën a yaatu rek xam naa ne ñun tam bu ñu fi jógee suñuy doom it suñuy doom ak suñuy set ak suñuy setaat dinañu dinañu gëm woote bi dinañ ko wuy si incha allah. alhamdulilah alamin ñoo ngi sant yàlla di jili Seydina Limaamu Laay sangab sang yi appel bi kontaan nañ bu baax parce que waxtaan bi fi dégg tey. sunu sang yi indi ñu ko gëm na ni lépp lu ñu doon ñaax rek ñun ñu ngi ciy gën a yokk parce que chaque jour ñu ñuy andi loolu. ñu ngi sant yàlla di julli ci bàyyi laay alayhi salaatu wa salaam di la wax ne woote bii amul tànku ginnaaw tànku kanam rek lay am parce que yëfi yonent la te yëfi yonent ci kanam rek la jëm parce que yàlla moo koy téyal boppam. ñu ngi ñaan yàlla Seydina Ali Maamulaay sallallahu alayhi wa sallam di sunu muur parce que gëm bàyyi laay nekkul loo xamante ni nii da nga ciy nekk nii rek bàyyi laay soo ko gëmee da ngay jàpp di julli di def ci li mu santaane te appelu ren bi lépp lu luñ ci gis incha allah rabbi li nga gis tey jii nii lasma la rek mais incha allah rabbi suba boo ñëwee ci yorooru jàmmalaay di nga gis ne bàyyi laay moom la yàlla yónni démb mu nekkoon ci màkk moo ñëwaat fii nekk Seydina Limaamul Mahdil Muntazar ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen tamit jàngat yéen ci mën a jëlee bari na bu ci jëkk bi mooy bi Seydina Laay taxawee mooy actualité bi jamono jii parce que àdduna bi jamono yi ñu toll nii dafa jaxasoo parce que àdduna bi jamono yi ñu toll nii jeunes yi ñoo ko war a defar jeunes yi ñoo ko war a defar mooy li Seyna lay jàngale sànq am na solo bu baax parce que léeg-léeg dinañ nekk ci jamono joo xamante ni nii jëf yi bari na lool mais jëfi yi Seyna Limaamu sallallahu alayhi wa ci ay jàngaleem bis buñ ko gëstoo di ko def yaakaar naa ni tànku kanam rek lay mooy ni Seyna lay waxee. parce que léeg-léeg dañuy li lépp lekk ci fondement base bi mooy xale yi mooy xale yi bis bu ñu leen jàppalee ak li moom Mamadou lamin wax tey mooy jéem a góorlu ci li nga xam ne mooy jàngale Seydina Limamul di bis bu buñ ko defee yaakaar naa dinañ am tey ndam tey ak ëllëg kon yaakaar naa ni ñun ci côté boobu lañ taxawee nag li ci des ñu lay ñaan yàlla ñu fekke ci yoor yooru jàmmalaay imaam moom Mouhamadou Makhtar dina gën leeral lépp mais ñu ngi sant yàlla di julli ci bàyyi di gën a feddali sunu ngëm tamit ñu ngi gën a feddali sunu ngëm ñu ngi leen koy wax parce que gëm bàyyi laay comme ni ma la ko waxee sànq du rek yàlla moo la ciy boole mun nga dem ci gaal gi ba yaakaar ni teer nga ba mu yàgg nga cëppeelu kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na nu yàlla may ñu gën a teer yi di gën a sant di gën leen a gërëm tamit parce que yéen tamit bu ngeen fi nekkee pour jàllale information yi dina am solo pour ñëpp a gën a dégg ne bàyyi laay mooy Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nit ñi nag dañu weesu dañu yaakaar ni dafa wax ni man maay keneen neewul maay keneen daf ni maay démb man maay tey yàlla moom la soob mu jël mu jël ruu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci man mu nekk démb nekk tey kon moo tax il faut ñu leeral àdduna ne bàyyi laay du ne man maay keneen dani maay démb maay tey comme ni ko Mouhamad Lamine waxee rek kon ñu ngi sant yàlla di julli ci yéen di leen sant di leen 138 appel euh, ren bi nan ngeen ko dundee Euh, soxna si maa ngi lay fay mais comme ni ñu koy tàmm di defee rek wax dëgg yàlla chaque instant rek ni ñuy gën a suñu ngëm-ngëm day gën a yokku daal wax dëgg yàlla tey jii waxtaan bi neex na wax dëgg yàlla di ñaanal yàlla Mamadou Lamine yàlla bàyyi ko mu yàgg fi lool ndax wax dëgg yàlla suñu xol gën na sedd gën na sedd gën na ñëw gën bàyyi laay di ñaan di gëm bay laay di dund di ko gëm di ba dee yeew di gëm bàyyi laay euh, appelu reen bi ak euh, appel yi lan moo leen di Euh, euh, lu leen utale mooy appel comme ni ngay waxee rek comme tey jii soxna si boo amee vingt ans déwén nga am vingt un ans loolu rek la du la neen bu su nekk day gën di yokkutu yokkutee euh, voilà mu ngi noonu day day gën di day gën yokku daal mu ngi noonu jàngat jàngat yu mu jot a digle lan ngeen si xalaat ah xanaa li mu wax rek sànq nee na ku xamante naa si ne waate ba doy la bu nopp du ma ta wax ndax gis nañ fi muxdisaat bu nekk bu fi lay def wan nañ nañ dem si teenu jàmmalaay bi bu màkk jotee day ndox mi day dem walla ju bu màkk nit ñi dem nañ fa gis nañ ko gisati ko yaa ngi dégg bàyyi lay randal na géej dëkk ba léegi fa mu nekk ndox ma dalu fa wax dëgg yàlla mu ngi noonu daal jàngat yu bëri na te lu si nekk li mu ñuy wax lu nekk gis nañ ko luy gën a yokk suñu ngëm-ngëm wax dëgg yàlla mu ngi koy dundee fii Cambérène. Euh, Sam ñu ngi koy dundee ak mbégte ak kontaante depuis bu affaire bi teeroo ba tey amatuñu jàmm amatuñu salaam ndax lii ñuy dund bàyyi moo ñu ko jalal sëy naa limaamul maadu yu muntazar lépp moom ndax moom moo ne woon aaji boo daaya laay woo nit ñi woo jinne yi woo ñëpp ba ñëpp wuyusi ko bon nag dañuy sant yàlla ak limaamul maadu ak Seydina Issa Rouhou Laye gëm nañu ko nag dañ ko gëm te xam ne mooy Rasulullaay moom la woon démb moom la tey loolu kenn du ko maakaan parce que moo ne woon géej randul fii yëpp géej la woon mu ne ko dandul dugal jox maam yi bant yi ne leen sampale ñu ne ah bu ñu duggee ba ci biir dina ñu raw de mu ne dem leen ñuy xuus di xuus ba mu ne leen sampaleen ñu samp mu ne géej dama bëgg nga yem fii géej fa la yem ba boobu ba léegi géej ma sula la randu ba ñëw fii ba ñu tabax fi xabdu Seydina Issa Yoff aussi la même chose nag ñu ngi koy ñaanal yàlla nañu yàlla wane lekk Seydina Limaamu ñu ànd ak moom ba ileen armeel yaa ngi nii fii armeel yi nekk géej koo suul boo demee sulli doo gis dara loolu rek doy na képp kuñ fa dugal bu ñu gestoo boo boo gasee kan ma doo gis benn pax mën nañ ci suul téeméeri nit armeel yi ba muy am suñu maamaat suñu maamaat ba léegi ñu ngi leen di suul te xoolal ni mu tuutee bon bu ñu gëmul bàyyi laay kay la ñu gëm moom mooy rasulaay ñëpp ko war a gëm ñëpp ñoo war a gëm limaamul mahdi bon nag ñu ngi koy sant ñuy ñaan yàlla yàlla bu suñu yaakaar tas si bàyyi laay yàlla nañu yàlla yàlla nañu bàyyi laay teeru teral ñu yàlla bu suñu yaakaar tas naa Isaa mii di doomam ñu ngi ñaan ndax bu ëllëgee moom moo ñuy wan bàyyi laay buñ ne cëpp yombal xiyaam sëy naa Isaa la ñuy gis du ñu gis bàyyi laay de moo ñuy yóbbu ba ci kanamu bàyyi laay bon nag bu ñu gëmul bàyyi laay ku ñuy gëm teg ci roowalaay saa teg ci sanga yu tedd yi bon nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko teewe ay at yu bëree bare baree bëri te rafetu fekki yàlla nañu ko yàlla defal defal ko mbooleem jullit ndax jullit yëpp ñoo ko war a gëm amul tiijaan amul laayeen amul murit ñëpp war a gëm Seydina Limaamu euh, appelu reen bi na euh, ak yeneen appel yi jot a jàll lan moo leen wutal macha allah at mu ñëw rek dàq moromam ndax at mu nekk rek nit ñi gën bari parce que léegi nit ñi ñu ngi xam dañu xamul woon mais léegi nit ñaa ngi xam moo tax ku sa morom dafa def nangu appel bi bu ba ñëpp daw nañu yoof mais ñëpp dañuy bu ñu xéewloo fii ba pare ba ci ëllëg su ñëpp daal di dem Yoff ah jàngat yu mu si yu mu jot a joxe yu mu jot a joxe lan ngeen si ban jàngat ngeen ah, xanaa jàmm ak salaam parce que message bi ne aaji boo daaye laay man la woon démb man la tey moom waxul ne man maay man nee na woon moom moo démb moo nekkoon démb nekkaat tey ndax dañ ne woon yonant dina wàccaat moom moo wàccaat ñi ko xamul nag dañoo réer rek dañoo réer mënuñoo gëm dañu réer mais moom waxul ne dañ ma yàlla moo ma teg may yonent dafa ne man la woon démba ci nit ñu xees yi man la woon tey jii ci nit ñu ñuul ñi waaw bon nag bu ñu ko gëmul kan la ñu war a gëm moom rek la ñu war a gëm moom rek la ñu war a gëm bon nag dañuy ñaan at mu ne rek neex rek at mu ne neex rek yàlla ñu ñuy ñaan yàlla yàlla nañu fi yàlla bàyyi ñu di ko appel di ko appel di ko appel ba keroog ba mu ñuy jël bu ñu jëlee yàlla ni ñu wanaleeg Seydina Limaamu su ñuy génn àdduna yàlla na sëy Seydina Limaamu taxaw suñu kanam ba ñu dem Ilayna. jërëjëf ñoo ngi lay sant. yàlla. Bismarck. Thank you.